thank you jërë jëf dalee nag jàmm ci xeexewu biir réew mi tey ajuma ñu tàmbalee xibaar yi ak li nga xamante ni moom mooy Salif Sadio mi nekk ci jamono ji euh, ca biir Gambie ginnaaw bi nga xamante ne nag waa Jeune Afrique daal nañu fësal ne euh, kii jiite li nga xamante ni mooy MFDC daal daw làkk fa nga xamante ni moom mooy biir Gambie ginnaaw ay lëkkaloo yoo xamante ni amoon na ko ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa armée bu Gambie moom nag nga xamante ni moom mooy Salif Sadio nag ma nga nekk Gambie ak juróom-benn ci ñenn ñoo xamante ni ñoom ñoo ànd ak moom ci liggéey bi ñoom ñoo ko daal di fekk ji fa nga xamante ni mooy Gambie ñu wax ci beneen mbir muy lakk ki nga xamante ni moom mooy wëy di am ci biir ndakaaru ci marché yi ginnaaw Petersen nag fa nga xamante ni moom mooy marché bu moo daal di lakk démb ay magasins yu bëri daal tàkk ba jeex waaye ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy dëkk ca Wakaam ñoom ñoo daal di woo xamante ni ñoom ñooy sapeur pompier yi ñu ñëw daal di fay lakk googu li nga xamante ni nag yàqu na fa ci alal ba léegi xaymaaguñu ko ci li nga xamante ni moom moo duppee ci lakk googu amoon ca marché ba nekk ca Wakaam ñu wax ci mbiru Adji Sarr bi nga xamante ni démb fële ca tribunal bu Dakar nag ñu gis ay nit ñu bëri ñoo xamante ni dañoo ñëwoon doon ko jàppale si waaye li nga xamante ni nag fësal nañ ko ci mbir moomu nag mooy ñooñu ku ci nekk da ngaa jotoon junni ngir ñëw teew ci li nga xamante ni mooy mbir boobu ndax ginnaaw mbir bi ba mu jeexee ba Adji Sarr duggee ci biir tribunal bi ñoo ñëpp dañoo daal sànni pancarte ne lañ Gabriel Kane ñëwoon jàppale ki nga xamante mooy Adji dañ ko doon yuuxoo foofu ca tribunal bi ba mujjee sax daal mer ba ñi nga xamante ñoom ñëwee force de l'ordre daal di koy teg loxo daal di koy euh, dugal ci oto yi ay waxtu yu néew ñu daal di koy génnewaat euh, ci beneen mbir nag ki nga xamante ni moom mooy Queen Biz nag moom mi ngi wëy di fësal Sonko ba tax ki nga xamante mooy Gabriel Kane ak Maty Trois Pommes mu yàq leen lu mel ni xeme ci li nga xamante ni lañuy gisee ne ñoom dañuy théâtre ci li nga xamante ni la ñuy def naa ni jàppale koo xamante ni daanaka fa ànd ak ñii di def complot ak ki nga xamante ni ñoom ñooy waa nguur gi ngi daal di yàqal ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko moom nag li nga xamante ni na leen te bu jógee si ñoom dinañ daal di noppi loolu moo ne kàddu yi nga xamante ni kii di Queen Biz yëkkati na ko jëmle ko ci ki nga xamante ni moom mooy Maty Trois Pommes ak mooy Gabriel Kane dañu jeexalee réew mi ak accident yi nga xamante ni moom mooy am ci biir réew mi beneen biir xew fa nga xamante ni moom mooy euh, Dandemayo sa Kédougou benn maçon nag mu daanu ci quatrième étage si benn kër goo xamante ni da ko doon tabax nag moom ba mu daanoo dafa daal di euh, ñàkk bakkanam ca saa si beneen moroomam bi nga xamante ne nag lu ànd ci liggéey bi kooku ay gaañ gaañ yu metti la euh, ci mbir moomu nga xamante ni am ko ndax tànk yi ñoo daal di damm ba sax yóbbu nañ ko ca hôpital ba nga xamante ni moom moo nekk ca Tamba ki nga xamante ne ñàkk na bakkanam nag ñu nga yóbbu néew ba fa nga xamante ni moom mooy morgo bu hôpital bu gu am na ab enquête boo xamante ni nag daal nañ ko ubbi ngir xam lan moo indi jafe-jafe boobu ba koox daal ci ñàkk bakkanam keneen si jël si ay gaañu gaañu li moo nekk li xew ci biir réew mi tey ji ajuma ñu leen jox di dajee altine jàmm ci leen i xibaar fii ci biir réew mi jërë ngeen jëf